ndaje bi tey dañ ko def parce que dañ ko programmé won damay tenir à préciser ça que yàggoon nañ ko programmé pour jox établissement scolaire yi 300 tables banc yo xamné ne yi mairie bi moko ko ci budget donc tay mënuñu woon a ñàkk def manifestation boobu ñaarel bi dañ fee dajé aussi pour euh, li nga xamné yi ay bassines lañu pour xalé di ci rasu parce que dafa am fièvre bo xamné bi dafa dugg ci bir deuk bi pour éviter ko nee à chat. Ah, d'abord nek na ci lo xamné li lii nañ koy mëna nek a nekk lu koy fànq donc motax ñu indi 40 ah, lavoiries yi école bu nek di nga ci am ensuite nañ leen outal ay madar yooyu yëpp pour que elle école bi bu ubbiwaatee xalé yi balaa ñuy dugg ci biir école bi ah, maître yi jàngal leen ñu mëna a di raxasu pour ci mëna set bon indi nañ aussi ay jeu de maillot indi nañ aussi ab coupe indi nañ fi ay ballon yooyu yëpp dañ ko jox parce que euh, éducation dafa nekk loo xam ne euh, compétence transférée la donc dañ ci wara def lo xamné li lii ñun itam suñu kéemtalaay lay moo motax ñuy chaque année ñu joxe ay tablement di gërëm nak ministre de l'éducation éducation nationale Mamadou Tala ak ñi nga xamné ñi ñii jitt won ñom Serigne Mbaye Cham nga xamné chaque année dañu doon dimblé ci ay tablement je crois que nak suñu objectif moy ñu fexé ba école bu nek classe bu nek ñaari élèves ñoy tok ci table ba au lieu de ñett wala ñent je crois que mën nañ ko mun a réussir parce que am nañu promesse amaat yenen 300 table ba yii mairie moko def ci xaalis bopam né nañ leen aussi bu ngeen démé carcasse yi am fofu ngeen ci wat ko ñu défarat ko parce que budget bi amnañ ci 5 millions di gërëm chef de l'État ci bëre bi nga xamné mu koy bëre vraiment pour que euh, feebar bi. Ah, mun a bañ a gañ Sénégal yu bari loolu taxna be fi ah, fii am marché hebdomadaire muy marché tukar je crois que mercredi la ah, ak sous préfet bi waxtaan nañ ci dinañu fexé be marché bi du am vraiment marché bi du am parce que bu amé nit ñi dañuy dañuy dajé bu amé nit ñi dañuy waxtaan dañuy nuyonté parce que ko wax rek ñu né mbirum yalla la nuyonté mom euh mënuñ ko bañ mais il faut ñu jëm commencer diko diko di wañi jéem que lolou gërum aussi sous préfet ak euh, euh, équipe bi mu yore équipe bi mu nekkal parce que ñoom itam dañuy jàppale guddi ak bëccëg gërëm inspecteur de l'enseignement et de la formation bi nga xam ne bi mu fi ñëwee ba léegi euh, presque ñetti yoon daje nañu pour ñu wax li nga xamné li lool la éducation soxla ñun liñ ci xam ñoom naka la xalaté pour ñu mun ko def en tout cas ma ngi gërëm ñëpp gërëm conseil yi nga xamné aussi chaque année ñoy voté budget bi euh, pour que euh, budget bi nak day évoluer et puis budget aussi du xaliss bo am ci ci ki bi rek euh, dañuy def ay prévision hein prévision yoy mun nañ ko am mun nañ ko bañ am mais ce qui est sûr et certain moy ren dinañ jënd 8 millions pour de fourniture scolaire ce qui est sûr et certain moy table banc yi nek ci école yi te yàqu bu ñu ñëwé bu ñu indi indiwaatee nañ ci def cinq millions bu beaucoup muté ça va beaucoup ko matul ñu ñu utiwaat ce qui est sûr et certain mooy également que euh, tournoi scolaire bi pour relancer euh, sport scolaire bi dinañ ko def mais dinañ def aussi euh, kat yi nga xamné ci école préscolaire lañ nek ah ñu jël len ci ay bénévole lañ ñu jël sen salaire pendant at boîte bi jexé nak ñu delloo len ministère l'Éducation nationale Et dans nationale. fi def ci commune bo xamné bi amul moyen ah, dañuy débrouiller vraiment ñuy ñaan ministre de collectivité euh, territoriale ñaan ministre de l'éducation nationale ministre de la santé ñu dimblé ñu di gën ñu appuyer parce que ñetti secteur yoy buñ ko amé rek nek na secteur bo xamné bi dinañ ci mëna réussir. Je bu très la parce que man li rek lay xaar ki maire yi motax buma bu ma may laata jël euh, fonction fi wala buma ma euh, service ba pare euh, sama première visite yi ci maire yi laa ko jagle donc dama rencontré maire yu fi nek yëpp pour ne leen ñun mënuñu dem sans ya comme xam ngeen né éducation ci sen compétence yi la bok wala ben patch bu reuy ci yéen la bok dama bëgg ngeen duggal sen loxo ci mbir éducation Mbagnick nak rencontré nako ko lu mot euh, ñent yoon bi moy juróomeel yoon bi moy pour recevoir n'est-ce pas ay table banc ak lenen donc mang ko ci gëreum bu baax di di gëreum également euh, conseil municipal bu xem parce que mom ki bopom rek mënul dem que conseil bi jappalé ko conseil bi comprendre lan le bëgg pour def ci école yi ñu jappelé ko ci donc man ko ci gërëm bu baax gis ngeen ne tay euh, xëy na sama wolof mënuma wax 300 wolof mais tay 300 table banc lañu jox té 300 table banc yooyu euh, carcasse yi le récupérer mu défarat ko muy lu am solo ça veut dire que déficit bu ñu am ci table banc euh, bu ci maire yi dugalé seen loxo parce que lu ñu am ci carcasse ci école yi dafa bëri trop donc maire yi buñu ci dugalee nous loxo rek mën nañu résorber petit à petit euh, déficit donc tay jox nañu 300 tables banc mu jox ñu 40 lave-mains 4 euh, jets de maillot ay 20 ballons ay drapeaux lolu yépp pour euh, éducation bi au niveau local donc man ko ci qui ci tour ministre bi euh, de l'éducation, man ko ci gërëm ci tour inspecteur d'académie, mais également man ko ci gërëm ci tour kat yi fi nek